internet bi seen euh, chaîne Tawfekh Production euh, ci YouTube bi tey jii nag ci numéro bi ci entretien ñu ci dalal euh, ki nga xam nag moom moo di madame Awa Ndiaye di présidente bu association Diapo de Tenerife de Tenerife vice présidente tamit ci coordination bu association sénégalaise bi nga xam nag mu ngi fare ca Canaries ñu xamee leen Kazakh waaye tamit nekk membre bu coordination bu comité directoire bu fédération bi nga xam ne moo ëmb association yi nekk di doomu réew Sénégal yow yeewoo ci réew Espagne mm-hmm. ñu gën a ràññee ci FAWOS mm-hmm. euh, te jii moom lañu dalal waxtaane li nga xam ne mooy actualité waaye soxal euh, suñu doom yi suñu mbokk yi nga xam ne ñoo fekk baax ci biti jamono ji euh, madame Awa Ndiaye ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay bu baax a baax a baax. waaw madame Awa Ndiaye tey yow la ñu dalal si sunu numéro bii di entretien euh, tey jii nan nga jàngatee euh, situation sénégalais ci ngeen may ma bala may commencer ma nuyu vraiment sama mbokku sénégalais yi nga xam ne ñoom laa bàyyi Tenerife di nuyu sama mbokk sénégalais yi nga xam ne en général ñoom ñëpp ñu ngi biir Canaries ak ñi nekk euh, en Espagne ni ma jàngatee immigration bi. Euh, en général actuellement mooy dafa mel ni euh, amoon nañ ci amoon na saafara mais dafa mel ni euh, la saafara woon dafa mel ni mi ngi yàquwaat parce que bu ngeen ko seetloo xam naa ne ak selon vos informations en tant que di ngeen xam ni immigration clandestine dafa commencé waat juddu mi ngi judduwaat. Mm-hmm. donc xale yi ñu ngi jëlaat yoonu ndox mi ak yoonu suuf si sax di jéem a seet nu ñuy fexe ba duggaat biir Europe. waaw lan moo waral dugaat boobu noonu eh, lan moo waral phénomène bi refait surface maanaam dellusiwaat nii da nga ne doon am saafara. waaw ni ma li ma defee ni moo tax phénomène bi di di jéem a judduwaat parce que man maa ngi Sénégal depuis déjà trois semaines et gis naa ne xale yi ci Sénégal franchement defuñu dara. liggéey ñu te ñàkk liggéey bi mooy ñàkk def dara bi li ma koy faree di wax mooy indi euh, l'arbre à parables muy autour du thé ñu toog di waxtaan kenn nekk di jéem a seet nooy def tamit ba génn ci situation bi nga nekk man dama jàpp ni xëy na ñàkk def dara occupation une occupation bi xale yi nekkee bokk na ci liy dugal ci seen bopp yi ñu jéem a génnaat réew mi. loolu ñu ci war a taxaw bari nañu c'est vrai que dañu naan état mais à part état moi j'ai toujours dit euh, ONG yaa ngi fi organisme yaa ngi fi man dama defe ne ñooñu ñëpp autour de d'une table ronde d'atelier de séminaire jàpp naa ne ñoo ci ñoo ñoo ñoo ci war a taxaw mais état tamit am na ci wàllu part de responsabilité parce que part de responsabilité bokk na ci mu jéem a Euh, seet fu muy casé xale yi ba kenn ku nekk am occupation ba euh, dem génn réew mi du nekk ci sa xel. Mhm. Euh, waaw tey jii bu ñu àgsee génn réew mi mais néew ba ca biir tey jii ci Espagne dañuy gis tamit moo xam ne réew yu mën nekk ci tugal ak fépp daal ci àdduna bi dañu gis Sénégal yi tamit jafe-jafe yi ñu jànkuwante foofu ñoom xam nga ñi dem nañu wax ak ñi mbokk mais ñi fa nekk di liggéey tamit dañu nekk si ay jafe-jafe. effectivement ñu fa nekk di liggéey ñu ngi ci jafe-jafe parce que xam nga réewu tubaab ak réewu Afrique différence bi mooy tubaab yi ñoom dañuy tegi norme te norme bu ñuy teg en général mooy c'est à suivre léegi nag soo ñëwee yow te intégré woo société euh, pays d'accueil bi en général sa jafe-jafe day metti parce que bokk na ci pour nga liggéey nga ami kayit déjà léegi soo amulee këyit doo mën a cotiser sécurité sociale booy wuti liggéey dañuy en tant que étranger immigré dañuy bëgg yow boo ñëwee boo amulee këyit jafe nañu jël la léegi lenn leen dese par exemple le cas des îles Canaries mooy comme c'est une île touristique parce que zone touristique la leen dese mooy njaay mi te njaay mi tamit gis ngeen ni mu demee mooy xale yi dañuy nekk ci mbedd mi di jaay mais njaay mi euh, jeu de cache-cache la ñoom ak policiers yi parce que c'est une activité en général jàpp leen ni nit ñi bëgg nañu dem mais il faut que ñu xamal leen ni tamit dem nekkin wa yombul. mais tamit est-ce que tamit comme yéen yéen a ëmb kuréel yi nekk foofu ci Espagne ci maanaam Europe man Espagne la may wax. Mhm. Euh, ndax li nga ko tudd sànq ne fa nga nekk. mais euh, kuréel yi nga xam tamit ñeen yéen a fa nekk nii nga xam da ngeen a boot ñenn si ñoom. Mhm. ñu ñëw ngeen di leen wan yoon yeeg yooyu est wax euh, bu ñuy ñëw xëy na amaale. formation maanaam amaale benn savoir faire boo xam si dinañ mën a tax ñu ñu mën a comme njaay mi léegi c'est une activité inégale ñu mën a am si lu ñu lu ñu kii. xam nga loolu njaay boo seetloo du question dañu war a xaar ba ñu ñëw ñu soog leen koy wax. Mhm. quand je di que base bi fii fii la si seen pays d'origine yi la base bi nekk. Mhm. mooy atelier yi ñuy wax yooyu yëpp bokk na ci. Mhm. ku dem bay dem tey na nga dem ci forme bu légal benn. deuxièmement na nga yóbbaale formation. na nga am dara loo mën a def yegsi en général ñi ci ëpp chance bokk na ci ñi nga xam ne bu ñu ñëwee fekk na amoon na benn métier ba pare yaa xam soudeur nga yaa xam mécanicien nga yaa xam électricien nga yaa xam sax euh, pêcheur nga ñooñu en général boo seetloo ñi nga xam ne am nañ lu ñu indaale dañuy gën a euh, am chance ñi nga xam ni dañuy ñëw ak zéro formation ñëw déjà ak zéro formation yoroo kayit il te faut trois ans pour régulariser sa situation sauf si nga ñëw ak regroupement familial. kooku déjà doo mën a man jàpp ma ne da ngay xaar ba mu ñëw ñun ñun war ñu xaar ba mu ñëw ñun xëy na suñu liggéey ñun en tant que acteurs yi nga xam ne ñun ñoo leen ñun ñoo yor kuréel yi nga xam ne ñoo leen di régir ñun peut-être suñu liggéey bokk na ci accompagnement. bu ñu xasee ba yegsi ba teg seeni bagage ñun mën nañ leen di accompagner mais pour nga leen di xamal ne formation dañ ko war a indaale moi je crois que j'ai toujours dit. que yi fii. mais boobu aussi euh, comme dañuy am jafe-jafe kii te tey jii dañuy wax li ñuy wax représentation diplomatique xam nga réew boo dem daanaka di nga am ku fa toogal sam réew. Mhm. Euh, mu lenn boo fa duggee yaa ngi ci suufu sa réew. Mhm. mais tey jii est ce que yéen a ngi leen di ci loolu ba ndax dafa mel daal sentiruñ bu baax ambassadeurs yi wala consul yi wala yooyu daal ndax loolu jafe-jafe kii. xoolal ñun dans la ñu ngi def lu ñu gis nga xale yi bu ñu yegsee bokk na ci jafe-jafe comme j'ai toujours dit surtout ñi nga xam ne dañuy ñëw ci gaal yi les clandestins. Mhm. bokk na ci jafe-jafe gi ñu jëkk am identification. parce que xam nga ni bu ñuy ñëw en général du ñu joxe seen vraie identité mhm. par peur de représailles wala par peur de répression yi nga xam ne mooy am muy euh, muy dévolution bi muy euh, rapatriement yi donc en général bu ñuy ñëw dañuy ñëw du ñu indi benn identité mhm. mais ñun fexe nañ di ba xam ni euh, consulat honoraire yi ñu ngi ci ñu ngi implanté wu un peu partout Tenerife am na consulat honoraire Las Palmas am na Barcelone boo demee yeneen dëkk Malaga am nañu mhm. mais consulat général bi aussi ñun vraiment fexe nañu ba ñoom ñi ngi def des bureaux itinérants mm-hmm. bureau itinérant bokk na ci ñuy déplacé wu ñoom di fekk nit ñi fa ñu nekk pour leen di defaral élaborer des passeports mm-hmm. donc ñun accompagnement bi mm-hmm. le premier document bi ñuy laaj c'est vrai que c'est un passeport euh, c'est même pas un passeport je dis que le premier document c'est une carte d'identité parce que à base de carte d'identité bi ngay amee passeport bi mais ñun effectivement fexe nañu ba accompagnement bi nga xam ne moo ci war ci côté diplomatique bi ñun consulat honoraire yi consulat général bi mi ngi def des déplacement vers le sénégalais ak foo mënti nekk pour élaboration document yi nga xam ne mooy document sénégalais yi léegi nag li ki des nag ñun ñoo koy dox. mais yéen comme yéen a ngi foofu tey jii euh, lu soxal wàllum euh, euh, union européenne wala yeneen kuréel nekk foofu tey jii léeg ñu dégg ñu ne des solution sécuritaires nangam nangam nangam. ñoom nan lañ taxawee ci côté ci côté boobu. waaw ñoom ni ñu ci taxawee nag euh, wax naa ko wax naa ko ci waxaat naa ko il faut vraiment reconnaître que il son valeureux ay jàmbaar lañu c'est vrai que euh, dafa mel ni tey ma toogoon sama kër jékki-jékki rek ñëpp ñëw fàq ñëwandoo sama kër. Hmm. dinaa jël ay euh, mesures yoo xam ne dinaa aar sama njaboot ba pare léegi nag dans la limite du possible ku ma ci xaj ku ci xaj dinaa la dugal donc ñoom tamit c'est vrai que ñu ngi def li ñu mën les les immigrés yi nga xam ne mi ngi ñëw léegi nag soo toogee ñëpp ñëwandoo du coup da ngay xaw a tamit jaxasoo doo xam u donné la tête mais ñoom vraiment li ñu mën moom. ñu ko tuddee jàpp ne kon problème identification des li wax les migration économique ñi nga xam ne peut-être dañu ñëw pour liggéey ak ñi nga xam ne ay daw làqu la ñoom yooyu noonu. est-ce que mën na nekk jafe-jafe ci ñoom aussi parce que ñi nga xam ne dañu ñëw pour liggéey ñoom ñoo ëpp facilité d'intégration déjà. Mm. mais ñi nga xam ne comme tu dis daw làqatu la et même je vais même pas l'appeler daw làqatu ñi nga xam ne dañu doon def seen i jéego wala seen i pexe ba dugg. Mm. ak lu ñu mën a duggee mooy tax du ñu identification. Mm. ñooñu tamit seen cas lay nekk toujours le cas le plus difficile à résoudre. l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale.